bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamualeykum sëriñ bi sëriñ Mouhamadul Muntaxa Bachir Mbàkke xalifatu kullu murid maa ngi yëkkati ay kàddu nuyoo yoo xam ne sama xol laa ko tibbee ak i kàddu ziyaara ak i kàddu di la ndokkeel ci bés bu màgg bi ñu dëgmal di bésu ngeneel ci dina lislaam di bésu yaakaar itam ci jullit yépp muy màggalu Tuuba ginaaw bu ma la nuyoo ak délégation bi ànd ak man ma wëlbatiku joxaat la suñuy nuyoo ak suñuy ziara jëm si njabootu xaadimu rasul gépp gi toog ci sa ginnaaw nga jottalil ñu nuyoo boobu ak ziara boobu ma ñëwaat sëriñ bi ci di la sargalaat si ajjuma bële ñu génn mu doon ubbiteeg juma masalikul jinaan ubbutegoo xam ne jàngat nañ ci yaatali xéewal ak jàmm akub déggoo jëm ci diine lislaam bi yépp rawatina ci këru diine lislaam yépp yi nga dajale keroog ci masalikul jinaan waaye nekk na it yaatal xéewal ak yaatal jàmm ak déggoo ci mbooleem diggante ñi nga xam ne it ñoo seq wàllu àdduna kon sëriñ bi maa ngi la ci gërëmaat du la santaat bu baaxa baax ci sa taxawaay ba lépp sotti ak jàmm jërëjëf bu ma dellu si waatee ci li jëm ci màggal gi maa ngi lay feddali sama pas-pas si gouvernement bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sa wet ba lépp lu yitteel dëkk bi rawatina li jëm ci wàllu màggal gi ñu mën si taxaw niñ si war a taxawee la cay jitu nak moy walu ndox ak assainissement ndax buñu amé amee waxtu wi dewon buñu fi yalla bayé magal gi ak dewon jéeg ci bir nawet lay tombe lolu nak dafa waaj dafa dafa laaj ñu am waajal ba bëgg naa bu ñu génnee ci màggal gi ñu saytuwaat mbiru ndoxu Touba ak réseau yi fi nekk ba xool dëgg-dëgg ak tolluwaayu dëkk bi lan mooy solution yu gën a yaatu te nekk luy gën a méngoo ak bëgg-bëggu dëkk bi waaye ak yitte askan wi nekk fii ci Touba. ginnaaw loolu it mbirum courant dafay nekk lu soxal dëkk bi ndax yaatuwaay bi ak tolluwaay bi loolu it gouvernement bi ak Senelec ak ñepp ñi nga xamni ñu ngi liggéey si walu woowu dañ si taxaw taxaway yu war be lepp mëna a yomb ah, ginaaw loolu sëriñ bi maa ngi ñëwaat bi ma ñëwee tey si suba dem naa visiter complexe Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul muy complexe bi nga tàmbali liggéey bi weer yi ñu génn du la wax ne de wax dëgg yàlla gis nañu fa liggéey bu rafet gis nañ fa it liggéey bu kéemaane liggéey bu ama am solo ci tolluwaayu bâtiment yi ak tolluwaayu daara gu mag googule waaye li ma ci gën a yéem mooy loo xam ne ay weer rekk ci ginnaaw nga ko tàmbali waaye tey ba ñu fa demee fekk nañ fa ay batiment yu bare bare yu R plus ñetti étage ñeenti étage yu taxaw ba pare muy wane pas-pas ñu nga dënk liggéey bi ak pas-pasu taalibe yi nga xam ne ñoom it nañ la ci liggéey boobu ñu la si ndokkale nag bu baax a baax ndax daara jooju xam nañ ne lu sëriñ bi bindoon la bàyyi fii kon nag su nga liggéey bu ama am solo boo xam ne ñëpp war nañ ci taxaw ñëpp war nañ ci jàpp ndax yow yaa ubbi liggéey bi yaa wane it jëfit li tax liggéey bi mel noonu ba tax na gis naa bi ñu ma présenté daara ji ne ginnaaw jàngale diine gi nga xam ne moo tax mu jóg boole nga ci ab métier yoo xam ne ay métier yi ñu fa mën a jàngal ñenn ci ndongo yi wàllu woowee nag ñu mën nañ ci taxawit sunu wàll ndax dama am yéene ci ñeen fukki département ak juróom yi ci biir senegal benn bu ne ma taxawal fa daara métier boo xam ne dinañ tàggat xale yi jàngale ni métier ba nga xam ne bu ñu fa génnee wutub xëy dana leen yomb lool kon ci sa ndigal mën nañu ci wàllu dara liggéeyukaay yi ñu indi itam loolu mu nekk beneen euh, suñu taxawaay ndax moom lañu ñu fas yéene def ngir yombal liggéeyu gone yi kon sëriñ bi ñëw bii tey dafay wareef si ñun ñu ñëw tam andil la ziyaara ak ndokkale senegal yépp ndax màggal gi nekkatul rek mbiru yoon wi nekkatul rek mbiru lislaamu Sénégal waaye dafa nekk lu wër àdduna bi yëpp kon ñu ngi lay ndokkale te ñaan yàlla suñu borom mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool te ànd ak wër te lépp loo sumb suñu borom taxawu ba nga mottali ko te am nañ ci yaakaar ñu lépp lu si suñu wareef incha allah daañ ci taxaw si sa wet ngir indi itam naa li nga xam ne mooy suñu wàll ci liggéey bi nga sumb dinañ ko dinañ si jàpp bu baax a baax maa ngi sant bu baax te la gërëm ndax xam sa yéene ci liggéey bi ma yàlla dënk xamit say ñaan ak sa jàppale kon yal na yàlla yàggal loolu yàlla sàmm Sénégal